Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. maa ngi tudd Khady Paris ci Prince seconde génération sénégalaise la nekk ñu ngi ma yare ci culture sénégalaise ak làkk wolof ak français suñu kër. bi ma nekkee gune bëgg naa woon tukki ak jàng làkk bu bees dundu naa Espagne Mexique ak Chine léegi maa ngi nekk Canada. pour man jàngal làkk bu bees am na solo ma nekkee gone tamit bëgguma woon wax wolof parce que amee woon na euh, complexe mais tey am na benn blog ci làkk africain pour man victoire la dina voyager pour séddale sama xam-xam jërëjëf pour gis vidéo bi ku ko gis rek séddale ko Amin ya